Um, today marks the 27th edition of the World Press Freedom Day. May 3rd has been set aside by the United Nations to pay tribute to journalism and journalists who have been killed in line of duty. It is also a day to remind governments of the need to uphold the values and principles of the press free press while providing a platform for media professionals to reflect on the freedom and responsibility of the media. This year's commemoration comes at a time the world is grappling with the coronavirus pandemic, which poses enormous challenges to the freedom and development of the media. Mm -hmm. uh, details of that on the Foreya newspaper. exactly. Uh, la uh, exactly GPU ñoom tamit ñu génnee ci bataaxal wane taxawaay bi ñaax tamit euh, journalistes yi ñu liggéey ci liggéey li nga xamante ne mooy liggéey bu tegu ci yoon bañ a ragal ak yu mel noonu wala jeng exactly euh, waaye tamit ah euh, ñu ñaax nguur gi tamit ak ñu ñu ñu gën a bàyyi journalistes yi ñu def seen liggéey comme nu mu waree waaw am na solo ragal gi sax du problème luy problème rek mooy jeng gi ak par bi gos ah, ah. nit ki su ragalee mun na am lu rëy lu mu bëgg mu bàyyi ko du ko wax waaye lu gën a garaaw mooy jénga wala nga par si koo xam ne nag da nga fi nekkal ñëpp hmm. dafa xaw di doy waar su ko defee ñu bàyyi si xel bu baax xam naa ne xel dina daj si ñu nga xam ne tam ay taskati xibaar loolu nekk si mhm. biir réew mi te ñàkk seen bakkan si fiil bi ñun tam ñu ñaanal leen yàlla fa mu fa mu nekk gënal leen fi ñu jógee dañ liñ bàyyi gannaaw tam yàlla euh, teg si loxo bi nga xam ne duñ am benn réccute mhm. amiin waay mhm.